محمد والآل وزد بإي في الآل والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بأل من آل من خصم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا على نبي الله سيف الله زيدنا نور الله علمني عبد الله عبد الله خائد الخلق للإله سيدنا محمد ولا آله وزد به في الآل والمآيال سل صلاة كل فاضل تسوخ لغير ساتي ليتدي مرب أسوخ بلا خروج ما سلام فائخا ليجود أبدا بلايخا على الذي سعتني توئيدا لك وبرسولك الوئيدا يا جائلا خطي فوق سني وسن خيري يا عظيم المني وهترس لو ما فاق المراد بالاختلاط وجلوت للمراد سيدنا محمد ولا آله وزد بإي في الآل والمآيال يا رحمن يا رحيم يا من بألم آلم خصم يا سيدنا محمد والآل وسبئ في الآل والمآل خاطبته بشكر وزنائي اسمك أني خلف لناي يا من زال خيري إني دلال اسكتني بكرمني يا سلجلال يا الله يا غريب يا مجيب صلي على الذي بتجيب سجناس الموجزات بسلام بآله وسبه مسسي سرايا وكن لي دعرة وكن معي وكن شيخا فوق المرعام بكن وجل بجي آتي سافيا لك بي مع الأجور دافيا سيخ الخديم سرين توبا tisbaari jeewal jaawaral sa màggal ga Sëriñ Tuuba ku sopp xaadim rasul defal ni ñu màggal ahmadou bamba sëriñ tuuba tisbaari jaawal jaawaral màggalam nga waaju jëreen di am xaaf faw ñu for sa bon nga tisbaari jaawal jaawaral tuubaana suufam sa kun ba suur nga am xufraana tisbaari jaawal jaawaral ëwlu ba dar jadar ko muy jëmbiilu bàyyi Cheikh Abdou Khader Mbacké tisbaari jeewal jaawaral awlu ba darja dar bamba muy jëmbeelo leeram nga jolli ba wey ndakaaru si xibdu xaadar mbàkke pànkum yàlla borom baxdaat waajun ko duppi fawu nga gëm yàlla si xibdu xaadar mbàkke pànkum yàlla waajun ko duppi fawu nga gëm yàlla badaat pànkum yàlla waajun ko duppi faw nga gëm yàlla kenn ñëwul deere kenn jaalu siiw la xewle kenn ñëwul loolu du dogal yàlla jikko la Ismaayil li nga lebal murit sëñ Tuubaa moo tax murit yëpp ñëw ñëw ngir jëmmi sëñ Tuubaa ñu ngi ñaan yàlla sunu borom guddal saw fan sa mbokki bopp yi jóge Tuubaa ànd ak délégation bu am solo bu ko defee dañuy jox sunu mag sëriñ Modou Diop di doom ci suñu baay Alaaji Mbay Peex jàmbaari sëriñ Touba ji werekaanu sëriñ Touba moom lañuy jox kàddu gi. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp ñu ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam waaye di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalif général kullu murit ñu di ko ñaanal bu baax a baax yàlla guddal fanam nañu may soxna naata mu ñëw nañu may soxna naata si la mu ñëw ki nga xamante ni moo waral lii ki nga xamante ni moo demoon ca kër sëñ Modou sëñ Abdou Khadir liggéey fa lii waaye sëñ Madiba si la maamam moo njëkk a gàddaay dem Saalum bay ba am gerte gu bari mu dajale ko jaay ko ba mu mat million mu jox ko sëñ Mourou Moustapha mu fondation Jumaay Touba ji ni ko yàgg sëñ Ismaïla yéen a bokk benn baay mu xam ni sëriñ Modou Abdou Khadir bu fi nekkoon lépp lu muy def ci doom yi ci doomi baay mi la ko la ko la koy commencé nekk fi njabootam nekk fi am bis bu mel nii ni sunu baay yii nii nu toppe woon sunu baay sëñ Modou Abdou Khadir noonu leen leen toppee jël bis bi dëppeeku ko mu yebal njabootam mbakke lépp a fen sëñ Moussa Fane it bu la yebalul woon sax dong ngay ca kër ga kum ca yebal rek ndoy ndax ni mu jàppee njabootu suñu doxaat kenn la ci njabootu suñu doxaat te fu mu taxaw sigil dërëm suñu doxaat. sëñ Abdou Xaadir bàyyam ilimaan la waaye moom sëñ Moustapha ak ilimaan la xanaa moo doon bàyyam yàqul dërëm sëñ Abdou Xaadir benn yoon te foo ko gisee lu la wax ci sëñ Abdou Xaadir nga gëm ko ndax sëñ Moustapha sëñ Moustapha sa baay ci sell gi dëggu gi ak fekke mag ñi foo ko séenee lu la wax ci sëñ Abdou Xaadir rek ci sunna boo séenee sëñ Moustapha gëm ko sa bàyyi donn sëñ Abdou Khadr sa bàyyi nuur sëñ Abdou Khadr waaye sa bàyyi doon sëñ Abdou Khadr kon Mbàkke boo teewee nii dend ak sa rakk yu baax yii sëñ Abdou samat mi ngi nii toog mu sëñ Modou Abdou Khadr nga dendanteeg moom ngeen jóge Touba ci sëñ Moustapha ñëw ngir bis bii Mbàkke waras na leen sant waras na leen gërëm ak sëñ Moustapha mu sëñ Cheikh mu sëñ Abdou Khadir gis naa ko ci moom laa jëm si woon baayam la sëriñ Muudu Abdou Khadir jóge fii bàyyi ko mu nekk ci njabootu sëñ Abdou Khadir waaye bu sëñ Muudu ñëwaatoon jamono baayam di defaraat toogaay benn yoon sëñ Cheikh yónneewul lettre ñaanul ci xaalis bu ñuul bi yónneewul kenn lettre état mosul taxaw buntu kër sëriñ Abdou Khadir benn yoon contesté sëriñ Seex mosul am li ma wax sëñ Moustapha rek mën naa ko wax sa baay ku gis sëñ Moustapha ku gis sëñ Moustapha sa baay ku gis sëñ Seex sa baay bu nee sëñ Abdou Khadir nangam la boo gisee sëñ Seex gëm ko ndax sëñ Abdou Khadir rek lay doxe mbakki sëñ Moustapha toog nii ñu tuddee ko sëñ Moustapha way juru sëriñ seen jiili mi sëñ Moustapha jur ko tarfakala macha allah nga toog toogaay bii dendanteeg sëñ Abdou Samad nii rek la yoon seen bàyyi lii rek lañ bëggoon te nag góor baax na jigéen baax na te bàyyam alaaji njuga kebe de bu ñëwaatoon jamono bi defaat toogaay li bàyyam mënoon ci yoonu murit njugal moom it dong ko mën ci yoonu murit ci doom bi loolu nag jagleel la Sëriñ Tuubaa du ko jug liggéeyal la day tànn ñi koy liggéeyal soxna Momy Kébé nekk nit koo xamante ni jàmbaaral Sëriñ Tuubaa la lenn ñoru ko lu liggéeyal Sëriñ Tuubaa dara ñoru ko lu xeeñ ci njabootu Sëriñ Tuubaa bisu Serigne Touba kenn mënu ci soxna moom màggalu Sëñ Bàmba gi kenn mënu ci soxna moom bu leeleetul xadri jotee kenn mënu ci soxna moom bu Kazu Rajab jotee kenn mënu ci soxna moom yi lépp lu xaw Touba kenn mënu ci soxna moom yi ndax jëfam Serigne Touba nag day dox ci kër gu mag xer bu mu romb mu ne ko bul fàtte Isaak waa këram jëf a tax jëf jooju Seex Isaa doon jëf ci kër Serigne Touba. ba xelu sàkkan sax di ko séenee Serigne Touba jëf jooju nag la soxna Momy Kébé di taxawee ci kër Serigne Touba saa su ne. mbala si bintaaram jot ñu ngi koy bu baax bu yebal sëñ daam mu baax mii torkal nga xamante ni boo séenee soxna Momy rek seen ko ci wetam àndante ak aada xasaayit mu baax mii nga xamante ni loxol nday jooru soxna Momy Kébé la yaakaar naa aada xasaayit ñëw na rek mooy ne ni Momy yónnee na. yabal sañ Ibra Sarr mii sëñ Fallou sa Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom it ñëw na mi ngi ci jataay bi yabal sëñ Ibra Sarr jànkatu xasida moom it ci délégation bi la bokk yabal sëñ Medoune mu baax mais moom it ci délégation bi la bokk ak saañang mii nga xamante ni kenn la ci soxna moom i kebe waaye nag ak kan Cheikh Mbacke Dia mii nga xamante ni jàmbaari Serigne Touba la jànkatu xasida Serigne Touba la délégation boobu la soxna moom i Kébé yabal. Serigne Abdoulaye Mbaye Peex di sama wujur moom it dañ koo tuddee ci bis bi mu yëkkati teraanga yu bari indi fii boole kooku yabal na ñun ñëpp ñu ànd ñëw ndaxte kenn ku ne xam na ni moom lu mu am Serigne Abdou Khadre la doomi sëñ Moodu de bu ko tuddee bis dina ci def mu mën ndax nag bi fi sëñ Abdou Xaadir jógee bu sëñ Moodu yàqoon mu yàqu waaye sa baay moo defal lu ne sama baay keroog bi ko sëñ Abdou Xaadir joxee bee Makka ba pare daal di làqu ci suñuy bët ñu bari dañ ko wooni ko bee Makka ba doo doo dem Makka sëñ Modou Abdou Khadir woo ko ba mu ñëw yëkkati bee bi jox ko ni ko misër bii nga xamante ne sama bàyyi da ko misaroon misaroon ci dama koy àggale waaye dama ko wàññi mukk kenn dong daan dugg ci kanam otoom it ànd ak moom muy dawal sama bàyyi la jóge Baxdad wala mu jóge Bustaan jëm si Touba teg mbay peex ci kanam oto bi ànd ak moom di ko kondiral di dawal muy dem sëñ Modou Abdou Khadir defal na ko sama bàyyi kon boo jëlee bis bi tudde ko ko kenn duy déedéet ndax sëñ Ismaïla day sëtub Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Abdoul Khadir nag bu ñee imaamu imaam yi Alaaji Medoune bu ñee imaamu imaam yi xel yëpp dem ci Cheikh Abdoul Khadir moo tax bu ñee sëtub imaam nag xel yëpp dem ci Cheikh Ismaïla Mbàkke yàlla na ko yàgg taxaw yow loo nekk taalibe bi yëpp nekk ci sëriñ Ismaahila sëtub imaam sëtub Cheikh Abdoul Khadir waaye sëtub sëñ ma diba silla yow sibtu ñaari seex nga ci wàllu ndey ak wàllu baay ngay góor soo xam ni sëriñ Tuubaa rekk ngay xamle foo yendu nu xam sëriñ tubaa foo fanaan nu xam sëriñ Touba nga jël ndaw ñu nag dimbali leen ma jóob daanaka boo waxee waxaaleel nga ñëpp ndax sëriñ bi lu mas a nekk boo ñëwee da nga nuy fekk fa waaye ñu fekk la fa rek ndaw ku ñëw ci kër Serigne Abdou Khadir fekk la fa bis bi nag alaaji Medoune alaaji Medoune dajee def lu am solo jël bis bi jox ci cër jigéen ju baax kooku mooy soxna Moominatu Kebe moom alhaaji njuga kebe soxna moomi kebe mu baax mi nga xam ne lu baax rekk ko ñor waaye soxna moom yéen a bokk Serigne Touba yéen a bokk Cheikh Moustapha Saliou yéen a bokk Serigne Saliou bis bi nga jox ko cib cër mu fonk bis bi moo tax mu yabal délégation bi ana aada jege si ma aada xasaayit seen daam ja moo jiite délégation bi lay loxoom dooto jogaat di sakku ñaan Seex Abdul fi moom sa xel mi dal ngir ñëpp yow sa laaj la ba la say cosaan kooku diw moo ana diw nga daal jaaxle naa ko diw mu daal di lay gàgganti yow leeral la nag loo xamuloon Cheikh Abdoul Khadar xam nga li tax mu doon imaam dafa bëggoon xayral anaam sëñ bee ko fal xayral imaam dana la wax na kañ la woon bis ba mu gënee àdduna moom foofee ñu naa daarul ali moom la wala fii wooye ndaam Cheikh Abdourahman nin ma nga fa woon waaye nag fi mu yónnee loolu arsif bind na ko si yoonu murit diggante alaaji Babacar Kebe ak Serigne Abdou Khadar loolu yoonu murid yoonu murid bind na ko. jumaa ji moo tax du fàtte njuga seen sax. Serigne Abdou Khadar mi nga xam ne liw nga raw li danaa wax ni bu ma duggee si jumaa ji rek sama xel day dem ci alaaji Babacar Kébé di njuga waaye baax baax na lool waaye bàyyi fi ku baax a gën rawatina nag jigéen ju baax soxna su baax muy soxna Mominatou Kébé mi ñu dippee mi ñu dénk sëriñ lay tege mu sëriñ Saliou ma baax baax na lool waaye bàyyi fi ku baax moo ko gën tawit nag soxna su baax kun ko dénk sëriñ lay tege mu sëriñ Saliou borom jurul borom xabbaan borom ñaari daari si gaagu ci kan la yónnee ci ki mu yónnee nag mooy sëriñ Ismaïla sëriñ Ismaïla sëriñ Modou Abdou Khader mi njëkk wuutu sëriñ Abdou yokk te ki yónnee nag bu wax baree du moom waaye nag bu jëfee rëy ci fan ci yoonu murid ci lislaam kooku nag kenn dootu ko laajte muy soxna Mouminaty hmm, waxu kaw ay kàddu cant rek la yónnee di ko seeral bokk yi baax yi ak njaboot sëñ Tuubaa gi toog di ko seeral waajuram bu baax wii toog nga xam ni peccum liir bu neexee nday jaa jàpp sa wag ya waaye nag moom ab nuyoom ak siyaaram ca fan la koy fan la koy tàmbalee mu sëriñ Seex mu sëriñ Abdou Khadre jëfam ci di xaritam sëriñ Seex di xaritam di sëriñam di léppam mu féete ko fépp. mu jëf ci sëriñ Seex lu ne. mu jëf sëriñ Seex jëf joo xam ni sëñ Tuubaa rek la koy seeral. rek moom i ak ay li muy bari lool ak ko doon taalib bi sëñ moo ko gënal léppam waaye nag ko woo sëñ Tuubaa mu wuyu la. Serigne Ismaïla albarka Serigne Ismaïla jërëjëf soxna moom mi nee na mi ngi lay sant de soxna moom mi neena na mi ngi lay gërëm gërëm loo xam ni am na tàmbali waaye amul fu mu yem waaye nag li ko booye ñor na ko lool ba tax mu ne boole leen demee moom jëmmi boppam moo si bëggoon a teewal boppam waaye nag li ko téye moom xam na bu yi weesoo dana la jot. boo leen waxee di ngeen toog jataay bu yaatu te jëmmi sëñ tubaa rek a tax ndax li nga ko boole da ko ñor lool mu sëñ tubaa kon délégation bii mu yebal dalay wan yow li nga ko defal te sëñ tubaa tax ñor na ko lool waaye mi ngi lay bàyyi nag sa maam sëñ tubaa yàlla may la gudd fan yàlla may la wér te àggaleel la ci barke seexul xaddim délégation bi nag du ma si dellusiwaat ma jóg peex bii taxaw nga xam li mu wax doyoon na sëkk di doomi soxna moominatu sëriñ Mooru ah, sëñ sëñ Medoune Faale gi taxaw sëriñ Ndaam Dia gi taxaw Cheikh Mbacke Dia Ibra Sarr mi bàyyi léegi sëñ saa ñang mu Cheikh Ibra Fall di doomi soxna moominatu ñooñu doy loon délégation kon soxna moominatu tabaarkàlla wala fi doon wax ni ku la jambaloo Dakar moo la màcc loo say loxo soxna moomi yàlla boo gàtt fan li mu waxoon ëpp na lii waaye nag tabaarkàlla jëf ji matal na lépp. Serigne Ismaïla Mbakke. nee di jiital ci nuyoo bi sëriñ Ismaïla Mbakke. mi nga xam ne day sama xarit di kenn ci man. mi nga xam ne day sama xarit di kenn ci man. mu taxawal lu rëy nii nga xam ne. nee mu taxawal lu rëy lii nga xam ni. maanaam diine jëmu ko. diine jëmu ko. mi ngi xëy dajale nit ñi. mi ngi xëy dajale nit ñi. di leen xamal sëriñ bi. di leen xamal sëriñ bi. di leen berndeel. di leen berndeel. loolu lu sëriñ bi gërëm la. nee loolu lu sëriñ bi gërëm la. man nag ma ñëw fii ci Mbour. nee man nag maa ñëw fii ci Mbour. Ismaïl dafa tudde bis bi da ko tur da ko cërale Serigne Moustapha moom sëñ Abdou. Serigne Ismaïl daa jël bis bi cërale ko waajuram muy sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir sunu waajur. sëñ Moustapha nag bis bi mu bég ci lool. ne Cheikh Mouhamadul Moustapha mu sëñ Abdoul Khadir bég ci lool. mu rëy moom lool ne mu rëy ci moom lool. ndax ni ko sëñ Ismaïla def. ndax ni ko sëñ Ismaïla def. ni mu ko jàppee waajur. ni ko jàppee waajur. nga xam ne lépp lu muy dugg. nga xam ne lépp lu muy dugg. ak lépp lu muy génn. génn. dana ñëw wax wax moom. dana rëy ci moom. loolu lu rëy la ci moom. ko yëgee. moo tax bis bi bi ko sëñ Moustapha yëgee. dani ma demal ànd ak moom bis bi ba mu jeex. fi sëñ Modou newoon it. nee bu fi sëñ Modou nekkoon it. ne bis bi sëñ Moustapha dana dana ko neex lool. nee bu fi sëñ du nekkoon bis bii sëñ Moustapha sëñ Ismaïl tuddee ko dana ko neex lool. sëñ Moustapha ne mi ngi lay sant di la ci ñaanal. ne di ñaan yàlla defal la tawféex. ndam. ne defal la ndam. ba nga yàgg koo taxawee. ba nga yàgg koo taxawee. barkeb Serigne Touba. man dama fee ñëwee ñetti cër. ne dama fee ñëwee ñetti cër. dama ñëw ngir mbokk. dama fee ñëw ngir mbokk. dama fee ngir xarit. ñëw fi ngir xarit. bi. kon am naa fi ñetti cër. yu ma fi ñëwee. maa ngi nuyu mbooloo mépp. di leen sant. di nuyu soxna Naata sila di nuyu nag soxna Naata Sylla. mooy sunu waajur. di sunu bàjjan. di bàjjan. jërë ngeen jëf kon sant nañ ñëpp. jërë ngeen jëf sëñ bi ne sant nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. nañ ko yàgg a taxawee. ne yal nañ ko yàgg a taxawee. te ñu daje cee ngërëmu Serigne Touba. te ñu daje cee ngërëmu Serigne ñu yàgg cee teew. képp ku fi teew yal na yàlla faj say aajo. yal na ci barke Serigne Touba. maanaam ab juddu moom. sëñ Ismaayila ab juddu moom. Eh, yàlla moo la koy tànnal. yàlla moo lay tànnal ab juddu. waaye na ngay def ba am nit ñi. nee na ngay def ba am nit ñi. sa jikko ju rafet la. sa jikko ju rafet la. loolu gis nañ ko ci sëriñ Ismaayila Mbacke. nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li muy kawe kawe. li muy kawe kawe. ko fa bi ma rahmatin min allahi yàlla nee na ko fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum linta lahum walaw kunta farjan walaw kunta farjan xalisal qalbi xalisal qalbi lan faddu min xawlika maa max na lan faddu min xawlika lan faddu min xablika faafu anhum wastaxfir lahum wasaarihum fi lardi dani ko boo nekkoon ku ñaaw jikkoo dani ko boo nekkoon ku ñaaw jittoo kon naqaare deret mbooloo mi duñ la wër de. mbooloo mi duñ la wër de. kon na nga leen jéggal di leen jéggalu. nee na nga leen jéggal di leen jéggalu. da ngay diisoog ñoom ci mbir yi. da ngay diisoog ñoom ci mbir yi. booy jël décision nag. nee booy jël décision. na nga wëkkilu ci yàlla. na nga wëkkilu ci yàlla. jikko rafet jooju. nee jikko ju rafet jooju. gis ci moom. dañ ko gis ci moom. moo tax gis nga mbooloo mi ni mel. moo tax gis nga mbooloo mi ni mel. mbokk yi ñëpp ñëw nañ. wala léegi ñëw nañ. te loolu lépp ci moom ne ñu ngi koy ñaanal lépp jëm ci kanam. barki sëñ Tuba te lu mu dugg am ca ndam. jërëjëf yàggal ko fi lool te ko wér. nag di ñaanal xalifa yi sëriñ yëpp. nee di sant ñi fi teew ñëpp. nee na daf koy tënk rek. nee na ndaxte jamono ji dafa xat fi mu toll nii. nee na ñu yàq temps bu bari. nee na délégation bii nga xamante ni soxna moom mi Kébé da ko fay yónnee. nee na te Serigne Dame Dia mu baax mii ak aada xasaayit ak ñi mu àndal jiite ko. baax. nee na délégation bi yéen ñëpp mi ngi leen di sant bu baax a baax. nee te di leen gërëm. nee na yónni nañu leen. ñëw ngeen. ci ñëwin wu rafet. nee na ci ñëwin woo xamante ni moom la ni sàkkoo ci ku lu yónni. nee na teraanga ji nga xamante ni soxna moom yi def na ko kaw na ci moom lool. nee na kon ngeen santal ko soxna moom yi kebe bu baax a baax a baax. nee soxna moom yi kebe day gis na ni mu jàppee waajuram bu baax wi sëñ Cheikh mu sëñ Abdou Khadir. moom yi kebe gis na ni mu taxawoo seen waajur wow nga xamante ni mooy Serigne Cheikh. nee na ak ci njabootu Serigne Touba gi ñu bëree bëri soxna moom yi taxaw na leen. ne soxna moom it tey jii li mu def rek teraanga la muy koo xamante ni musoo koo gis ne nga tudde ko bis mu def te def déplacement bu mel nii jël teraanga ju bari boole ca indi la ko ñu mat ay ndaw. nee boole ko yónni leen ñu mat ay ndaw. sant na bu baax. nee sant na bu baax a baax soxna moom i Kébé. Medoune Medoune. sëñ Medoune Fall ñëw na moom it. nee sëriñ Medoune mu baax mi moom it ñëw na. nee àndanteeg délégation bi ñoom ñëpp ñëw nañ kon nag sant na leen. di leen ñaanal. nee sunu borom defal ko xéwal moom soxna moom i kebe. te yokk ko baax a baax. nee te it boo leen àggee na ngeen wax soxna moom i kebe. sëriñ Ismaïla Mbacke nee na jàpp na kóllëre gi bu baax a baax a baax baax. démb ci démb ci takkusaan. nee démb ci takkusaan fii. yaakaar na am na ko ko fekke fii. nee yaakaar na jataay bi am na ko ko fa fekke. daa rek. nee daa toog tuuti rek. sëriñ moom sëñ Abdou Khadir woo ma. nee sëriñ Basiirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir Mbacke daal di koy woo. ne ma ne ma yëg nañu taxawaay bi. ni ko yëg nañu taxawaay bi Mbacke. yëg nañu it jëf ji yàlla na ci sëriñ Touba teg loxo ne booba la xam ni moom mii Mbàkke lépp dina jag bu melee nii rek. nee moo tax tey bés bu bu nii rek. nee daf koy tënkaale ci taalibe yi rek. nee na ñu xam ne sant gi genn rek lay doon. nga xamante ni buñ ci jógee li ci des lépp am yëngu lay doon. soxna nee di sant way juróom jigéen wii ak ñi mu àndal ñëpp di soxna naata. nee ak rakam ji nga xamante ni moo moom ñoo bokk sëñ Moodu Abdou Khadir muy maam Jaara Mbakke. nee ak délégation bi nga xamante ni soxna si ànd na ak ñoom yëpp muy doomi ndey meeg doomi baay mi mu àndal ñëpp ñu ngi leen sant baax di leen gërëm. nee na muy njóobeen géeg si la géeg ñëpp mi ngi leen sant baax di gërëm. nee waaye nag di sant taalibey sëriñ Touba yi rawatina waa Mbour. nee di jiital ci sant gi. Serigne Medine Diop. nee mi nga xamante ni moom la dénkoon liggéey bi. nee bu liggéey bi agsee fii. nee def na ci lu rëy rëy. di sant Serigne Talla Gaye. Eh, moom Serigne eh, sëriñ Talla Gueye moom sëriñ Abdou ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko nee di sant waa daayira Mbour bi yëpp. nee di sant génération sécurité. nee te it ñu leen di wooy waa BI. nee mooy Baye Fallou imam. di sant daayira Daaru Rahman bi. nee di sant it daayira Daaru bi. sëriñ Cheikh Sey. nee di ci jiital sëriñ Cheikh say ak soxna Anta Diouf nee ak ñu nu àndal ñëpp nee di sant nag mbokki boppam yi di njabootuk sëriñ Touba gi nga xamante ni tey temps amul ñoom ñëpp ñu bàyyi seen i tépp ñëw toog ci wet ci baas bi. nee comme que man mi sànq kenn ku ne jaaroon naa sa tur rek nee da ciy bañ a jaaraat. waaye nag di sant rakk boppam xaritu boppam di sëriñ Abdou Samad mu baax mii. nee ak sëriñ maam Thierno. Euh, di sant génération nee di sant génération surtout imam. nee di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëñ Dame. ak sëriñ Ousmane Wadd ak sëriñ Cheikh Gueye. ak ñoom mbay seen Assane. ak Ahmadou Xool. nga xam ak Serigne Saliou Mbacke mii nga xamante ni dafa ràññeeku ci ñoom. di liggéey ci liggéey bi liggéey ci liggéey bi. kon ñëpp. nee kon ñu ngi sant ñëpp. di sant Say Ndoye. nee di sant it soxna Say Ndoye. nee yaakaar naa Mouhamed fa la dalaloon. nee ñu ngi koy sant bu baax. nee ak borom këram sëñ Thierno. nee yëg nañu taxawaay bi nee di sant it Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Daouda nee ci turu daayira waay yëmbal yëpp nee moom daal bu limee dafay juum nee njabootu sëriñ Touba jigéen gi nekk fiit nee ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax nee di ñaan yàlla sëriñ bi nee na ñi ngi ñaan yàlla yàlla na nu sëriñ bi nangul nee te di baalu àq waa secteur koñ bi yëpp nee ci yëngu gi yëngu tey ak matadik doomu aadama gi nee di sant képp koo xamante indi nga fi sa teraanga ñu ngi lay ñaanal yàlla dool lay xéewal nee kon nag mi ngi sant sëriñ Abdoulaye Mbaye Peex sëriñ Abdoulaye Mbaye Peex moom nee bàyyi la ci moom mii. moo fi njëkk indi xéwal. nee moo fi njëkk indi ay teraanga. nee loolu yàgg na. nee na moo ko njëkk a tuddee doom it. délégation maa ngi koy sa tur. nee délégation bi mi ngi koy jaaree sama tur man mii. nee na bu bëtam xonqee sax. nee sëñ Ablaye rek la yow. nee na ndax tey it sëñ rek la xam nag. nee yàlla na yàlla def jàmm. nee boo limee rek. mën ngaa juum mën ngaa juum. nee te bu sañoon kenn du mer. nee moom ñëpp la fonk. di wax nit ñi ñu ñu ñu santal ma sama waa baas bi nga xam ne moom. nee na di wax ñëpp ñu sant leen seen waa baas bi nga xamante ni tuwaar kàlla baas bi yànj na. muy Serigne Jolli. ba mu dalee màggal ba léegi ñooy ànd. nee ba mu dalee màggal ba léegi tuwaar kàlla ñooy ànd tabaas bi ànj na. nee Touba la leen jëlee. nee kuy baasu rek na leen woo. nee na bu paree yónnee deux cent mille rek publicité bi ci publicité bi. waa koñ bi ñépp ñëpp génn seen kër. nee na ñëpp génn seen i kër joxe ko. ndax xam na gan nee ndax xam na gan ni mu ngi ñi ngi ñi ngi jéggalu ñi ngi jéggalu coono yëpp. lu ci waay def ci lu baax. yàlla na la ko Sëriñ Tuubaa fay. jërëjëfati soxna Bitim. di ñaan yàlla ak Cheikh Mouhamadul Mountakha. alxalifatul li tariixati aw li taifatil muridiya ayadawlaaw nasara xaafisawulaa waraa yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér di ko ñaan rakkam yu baax yépp te buñ tuddee sëriñ Cheikh Mbakke ibnu sëriñ Abdul Xaadir ibnu Xaadim Rasuul mu yóbbaale ñépp waaye noonee lañuy ñuy ñaanalee sëriñ Amdi Fall ibnu sëriñ Modou Mbenda ibnu Maam Cheikh Ibrahima alxalifatul usratil baay faaliya ayadawu laaw nasara xaafisawu laaw ran yàlla na fi yàgg lool te ànd wér di ko ñaanal sëriñ abo waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ siidi di nuyu bu baax nag mbooleem ku nekk ci jotaay bi di wax sëriñ Ismaayla ñu lay nuyu sëtu imam muy sëriñ Ismaayla Mbàkke ibnu sëriñ Moodu Mbàkke jàmbar ja ibnu sëriñ Abdul Xaadir ibnu Xaadim Rasul sëñ Ismaila ñu ngi lay nuyu bu baax tey sax daanaka waxtaan andiwu ma fi sama digg yow moo ma fi andi ndax dama dëkk yow mën a def ci yow ay seede te alxuraan dafa wax ni on fi bil ahdi inal ahdi kaana masulan te dinaa ci ñëw na ngeen fonke àq dëkkandoo ndax boo léegi yàlla dina ko laaj sëñ Ismaïla dëkk ak naag moom ay at wala at ak lu topp foo ko fekk jukki bi la yor foo ko fekk jukki bi la yor loolu nag day wane ni day doomi sëriñ Moodu sëriñ Moodu doomi sëriñ Abdou Khadre te mat naa xam nag dañoo war a jàngaat jikkuy sëriñ Moodu moom sëriñ Abdou Khadre ma jëb jërëjëf kan mooy sëriñ Moodu moom sëriñ Abdou Khadre mooy taawi sëriñ Abdou Khadre kan mooy sëriñ Abdul Xaadir moo gën a fan ñett moo gën a àdduna ñetti fan ci weeru muharram ci daaru alimul xabiir sëriñ Tuubaa mi nu yaakaar tey ak ëllëg yebal ci ribra ko demal tudd ji ko te booy dem nanga dox ndànk ndax koo taseel jéggal nañ ko ay bàkkaaram bu faatoo tabbi ajana boo ko andilee tur ba noppit boo ñëw na dox ndànk ndax boo dellusee koo tasanteel jéggal nañ ko ay bàkkaaram tabal nañ ko ajana sëtu yi moom maa ngi nuyu sa mbokk baax yi nga fekkoon sëriñ Abdul Samad ibnu sëriñ Modou Mbakke ibnu sëriñ Abdul Xaadar muy sama wala raw yàgg Mbakke maa ngi lay nuyu bu baax waaye di nuyu bu baax sëriñ Sidi Mbakke mii sa ginnaaw moom sëriñ Mamoun sëriñ Sidi ibnu Cheikh Modou Mamoun ibnu sëriñ Ibra Ndar sëriñ mii Mamoun sëriñ Ibra Ndar bokk na ci sëriñ Tuubaa mu jee di nuyu baax sëriñ Omar waaye di nuyu baax sëtub sëriñ pof di bii toog muy sëriñ Cheikh sëñ Seydina Mbakke di ko jox wàccuwaayam bu baax mu mel ni ni nuyu nag sëriñ bi jànkatu xasaayit yi Mohamed Niang maa ngi lay nuyu bu baax di tew feex ak mboolem jànkatu xasaayit yi ngeen fi fekk yëpp sëñ Xaadim maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sëriñ bi ñaari kaddu laay tënk. ma jóg nañ santaat yàlla julli ci yent bi sant Serigne Touba bis bii Serigne Touba am lu mu wax sëñ Abdou Samad jërëjëf sëñ Xadim addee sëñ Touba nangul sëñ Abdou Samad dama ni seen maam nit mën na koo mag biir sëñ Touba waaye sëñ Abdou Khadir kenn di ko gën biir kër sëñ Touba li gën biir kër sëñ Touba lan jox seen maam mat naa leeral de nee nañ lu gën mooy alquranul karim sëñ Mamadan moom sëriñ Masamba da koo mas a jox maamam sëñ Abdou Khadir jox ko alquran mu ne sëñ Mamadan mii kat buñ doon wax soññee son wana njóobee dunya wa uxra min al kalbi li ngay jox sëñ Ismaïla sëñ Tuubaa nee na fay nanu a sa taraxee buur sëñ Ismaïla moo mën a teeru gan daayira bi noo koy sant bu baax noo ngi gërëm bu baax sëriñ Ismaïla wax ji daal dañ tënk nee koy tënk mbokk jullit yeeg mbokk taalib fi mboolem mbokkum jullit mu fi teg wala taalube ñoo ngi la koy seedeel ñoo ngi sant bu baax sëriñ Ismaïl